nag moom mooy ñàkk déggoo ci diggante nag kilifa yu ñu am yu bees ak presse bu Sénégal jëwriñ ji nga xamante ne moom lañ dénk wàllum communication télécommunication ak numérique boppam daal dinay euh, tëju looloo waral tey jii Alioune dem ca maison de la presse Babacar Touré am fa ab euh, euh, jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir rek daal di weddi tuuma euh, jëmale ci li nga xamante ne nag moom mooy xoqatal bi nguur gu Sénégal di xoqatal presse bu Sénégal daan ci di dikkaat ci biir jotaayu xibaar yi ca jurbal nag juróom-ñeenti doomu aadama daal nañuy ñàkk seen bakkan ci ab l'accident boo xam démb la am. deux heures bi mu jotee ci route nationale numéro 3 diggante Ndullo ak Xuuru Mbàkke euh, benn camion bu jugee Gambie moo daal di duggante ak euh, benn minicar euh, juróom-ñaari doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan ci saas ya yeneen ñaar ya ci kanam tuuti bañ leen yóbboo ob l'hôpital ci lañ ñoom it ñàkk seen bakkan dañ ci dellu siwaat ci bi jotaayu xibaar yi ca Mbuur ca Sali nag gis nañ ne ab atelier waa forum civil amaloon nañ ko fa ngir rek daal di waxtaan ak ñi nga xamante ne jot nañoo dund ay métit ci li nga xamante ne moom moo soxal euh, violence politique Birahim Seck nag jàpp na ni euh, loi d'amnistie bi dañ ko war a abroger euh, te nag daal di ubbi ab l'enquête boo xamante ne nag enquête bu am solo lay doon daañ si dellu soir ba tey euh, ci biir jotaayu xibaar yi waaye nag la nga xamante ne nag métti na mooy euh, diggante nag euh, travailleur ñi nga xamante ne ñoom ñoo liggéeykat ya nekk ca collectivité territoriale ak ministre ba nga xamante ne moom lañ dénk lile di Moussa Balla Fofana dara fa diggante ba rattaxagul ba léegi ndax ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy kuréel gi ëmb liggéeykat yi rafetlu ñu benn yoon li nga xamante ne moom la kàddu yi jëwriñ ji yëkkati kàddu yu mujj yi daal rafetlu wuñ ko jàpp nañ ne nag lu ñu war a waxtaanee lañ waaye looloo waral ñoom dinañ continuer li nga xamante ne moom mooy seeni banque loxo ba waxtaan am jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur Global TV loolu moo nekkoon nag li gën a fës ci xibaar yi bu ngeen taaxir loo ñu faram fàcce ko. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu global télévision 19h euh, tegal na fukki simili ak ñaar ni ma leen ko waxee woon ci bi ñuy door euh, diggante nag euh, taskatu xibaar yi ak nguur gu yees gi. ëpp na bopp jëwriñ ji nga xamante ne moom lañ dénk wàllum communication télécommunication ak numérique Alioune Sall nag tey jii ci àjjuma ji. Euh, ci la nak def li nga xamantene mom moy lancement plateforme déclaration de médias ci ab jàkkaarloog taskatu xibaar yi euh, mom n'a li bi bile plateformes moy ñu enregistrer tek ci daal di réglementé. Euh, li nga xamante ne moom mooy secteur euh, média waaye nag euh, ki nga xamante ne moom mooy bile jëwrin fexe na ba profito ci bile occasion ngir weddi tuuma jëmale ci liñ ne état bu Sénégal nguur bu Sénégal dafa daal di xoqatal bu Sénégal ñu teewlu ci Mansour Diassé ci ab compte bi ci point de presse biñ ñu doon def ngir amal lancement plateforme déclaration média ministre bi gallo lu jëm ci la communication télécommunication ak numérique def na fa xayma jëm ci ñaata presse ñoo nekk fi ci Sénégal muy juróom fukki quotidien téeméer ak juróom fukki site en ligne ñetti téeméeri radio, fanweer ak juróomu chaîne de télévision yu nekk ci TNT bi. c'est-à-dire faire une première cartographie euh, du secteur des médias de manière exhaustive. Euh, ce qu'on appelle la presse écrite.

à travers le ministère de la Communication et des Télécommunications, n'a aucun problème avec une quelconque entreprise de médias que ce soit. Et je pense que nous sommes tous soumis aux mêmes lois et règlements. Moi, j'ai toujours dit à qui voulait l'entendre que nous avons un traitement de faveur au secteur de la presse au détriment d'autres secteurs ba tey suñu sukkandekoo ci ministre bi ci juróomi at yu mujj yi ci benn milliard ak juróom-ñeenti téeméeri millions yi ñu dugal ci aide à la presse téeméer boo jël ñeent fukk yi ak juróom demut fam moomu. sur les cinq dernières années. 45 pour cent demul ci conditions yi nga xam ne moom laa listé sur le slide précédent 45 pour cent des 1 milliard 900 millions muy quand même une somme hyper importante qui représente aussi ici dans ce slide 800 millions de francs CFA dugul ci entreprise de presse ci ba muy jeexal kii di ministre bi mu ngi xam la ne dinañ def ay réformes ngir fexe ba jëyanti secteur de la presse ndax jafe-jafe yi ni mel bañ fee amati. il y a un besoin de restructurer les entreprises de la presse afin de les aider afin de les rendre pardon plus autonomes et plus viables. ca Diourbel ni ma leen ko waxee woon ci bi ñuy door ab accident bu metti moo fa daal di am ndax benn camion démb bi deux heures jotee. Euh, ci route nationale numéro 3 ci diggante nag Ndoulo ak Khourou Mbacké ci la benn camion bu jugee Gambie daal di duggante ak benn minibus euh, juróom-ñaari personne nag ñoo dee ci saa si euh, ñenn ñi ñu yóbbu leen ci hôpital Heinrich Lubbe bu Diourbel ñeneen ñi hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba. Atoman si mi nga xamantene nak mom moy directeur ANASER mom nga xamantene ne teel naa egg euh, fa nga xamantene ne faral l'accident ba amé ci micro Adam ba lañ koy teelu ko accident bi euh, ay vers 14 h 50 la am fi entre euh, Ndullu ak Khourou Mbàkke et vraiment di nuyu aussi di gërëm bu baax les forces de défense et de sécurité ñi nga xam ñu leen fekk fi ci bërëbu accident bi bon bañu ñu fi nak nous euh, constater quand même donc d'après euh, les informations yi ma euh, c'est un accident qui a impliqué dafa impliquer ben camion bu mag bu doon transporter ay denrées alimentaires donc dans dem Touba donc mu ben mini minicar donc boo xamante ne dafa jóge Jourbel Touba plutôt ou di dem Euh, bon il s'est trouvé que malheureusement donc il y a une collision frontale parce que camion bi ci boppam euh, euh, chemin am donc dérapé que mini et malheureusement donc euh, c'est une collision frontale qui était qui, était fatale donc le choc est, vraiment très fort et du coup, sur le coup, apparemment, il y a eu, effectivement, c'est ce qu'on a constaté, donc avec les informations que j'ai reçues, juróom personnes donc sur le coup du juróom-ñaar plutôt euh, maintenant euh amna ci ay blessés aussi donc il euh, y a eu 17 euh, blessés mais entre temps bilan bi évolué donc actuellement li may wax ak yéen ñaari donc du coup ça fait 9 personnes donc loolu vraiment bilan bu et puis actuellement il y a 14 blessés euh, di ñaanal ñi nga xam ne dañu faatu di leen ñaanal yàlla leen yàlla yërëm te xare leen àjjana donc vraiment di ñaax nit ñi encore surtout conducteurs yi ñu def ndànk ci yoon yi ci tali bi c'est vrai euh, euh, période màggal lañu nekk mais amul dara loo xamante ne dañu nekk war a nekk di yàqanti donc c'est extrêmement d'être prudent sur la route et je pense que en tout cas incha ñun dinañu jël ay matukaay yu am solo euh, par rapport à Magalbi et par rapport même à yenen événement yi nga xamné dañuy ñëw. mu nek lu metti nous ñu gis né nak euh, Magal Touba mi ngi si waral nak ba. Euh, dinañ ko daal di euh, dekkilaat euh, comme daaw nañ ko defee xam naa ab baaxantal lañ ko bëgg a def lii leen nag joriñ ju yees ci nga xamante ne moom lañ dénk chemin de faire du Sénégal di Ibrahima Ba ginnaaw ba mu demee assister nag benn don de sang bi nga xamante ne association des femmes du rail ca Thiès ñoo ko organisé woon jëwriñ ji xam na ne moom ak waa Grand Train du Sénégal Euh, ñi ngi daal di def ay euh, vérification yu mujj ngir rekk raay ba mën a jugee Thiès. daal di wutali Touba ci màggal gi euh, ñetti fan avant màggal gi waaye nag tamit dina jugee ci yeneen yoo xamante yeneen i gox ngir dem foofule ca Touba Mbacké Ibrahima Ba ci micro Khady Fall. à l'occasion du màggal effectivement le train va va circuler hein train bi dina daw atum ren ci màggal gi niñ ko amalee at mu weesu ndax day gën a yombal li nga xamante ni mooy dem ngeeg dikk yi ndax ñëpp xam nañ ni bu màggal jotee daanaka àdduna wërngal képp rawatina fii la ci Sénégal fu waaye ne da nga fiy jóge ngir mën a dem fi nga xamante moo di Touba tey nag li train bi mën a jël ci benn voyage yaakaar ma ni oto yi mën nañ koo jël te it gis nañu ni daaw yombaloon na bu baax a baax dem ngir dikk bi li jëm ci l'accident yi tamit wàññi na ko waral ba fu mu nekk nii mën nañoo jàpp ni daal ni dana bokk ci li yóbbu nit ñi. nekk ni sax ñu ngi ciy liggéey ñu ngi xool di saytu di jëm ci terrain wi ak li nga xamante ni moo di matériel yi ak ñu ñu mel li techniciens yi ak ñi nga xamante ni ñu nga ci yëngu daal nañ jàpp ni ñu ngi ci tey nag jort nañ ni fii ak màggal wi daanaka bu desee ñetti fan dina mën a tàmbalee daw mën a tàmbalee yóbbu nit ñi loolu daal ñu ngi ci dara xelu askan wi waral nag ñu sàkku rek ñu daal di amal ab collaboration ngir fexe rek ba màggal mën a jub tey wéen mën a jaar ci yoon ci wàllum gëm gëg dikk bi te it nag kenn bañ ci gàllankoor ñu ñaanal ñëpp nag ñu ànd ak daal ak tey mën a dem ci jàmm ñëw ci jàmm ñu jëm ci urgence yenn jàngoro yi ci màggal Tuuba ba tey ñu gis ne nag euh, urgence yi nga xamante ne moom mooy am ci euh, yenn ci accident yi ak nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw di màggal si l'hôpital euh, Matlaboul ni bu Touba Mbacké daal dina ci xar tànku tubéyam ngir rek daal di taxaw ñi nga xamante ne euh, képp koo xamante ne maar détaillé am nga accident wala nga nekk am jàng doomu jàngoro joo xamante ne euh, sonal na la biir euh, màggal gi ci loolu la ñu duppee nag plan blanc ci loolu jël nañ lépp loo xamante ne seen i matukaay la ci fegoogu ñu feggoog centre des opérations d'urgence sanitaire euh, ki nga xamné nak moy docteur Matar Diallo mi nga xamante mom moy mooy euh, ji ngi denk bi lé hôpital di hôpital euh, Matlaboul Fawzeyni bu Touba Mbacké Arama Ba mon ci indil ay léral dañoo jëm ci xew-xew bo xamné bi xew-xew bu àdduna bi yépp di magal la muy magal gu maggi té su xew-xew boobu amé limi yëkëti ci ay nit day bari ba tax na ñun ñi nga xam ne dañoo nekk hôpital nekk ci biir Touba war nañoo jël ay matuwaay yoo xam ne bi mooy tax ba bu jëy amee ñu mën a fexe ba mën a jànkonteeg malade yooyu ndaxte bis bu nekk ñuy am ay urgence waaye dañoo war a bàyyi xel itam euh, bis jot ñu am ay jafe-jafe yoo xam ne bi blessé yu bari dañu fi ñëwandoo te su boobaa su fekkee waajaloo sa bopp man ngaa am ay jafe-jafe ci xool na leen saytu. nous avons l'habitude au niveau du service des urgences de recevoir chaque jour et chaque heure des blessés Aujourd'hui, actuellement, quand vous rendez au niveau du service des urgences, vous allez voir des blessés qui viennent, mais par contre coup. Maintenant, on dit massif quand c'est une arrivée groupée et d'un seul coup. C'est-à-dire on a plusieurs blessés en même temps. Et ce qui peut l'amener parfois, c'est des accidents de circulation parce que cette exercice-là a simulé même un train qui a déraillé. Mais si un train qui a plus de centaines de, de passagers déraille, on peut imaginer qu'il peut y avoir au moins une centaine de blessés. Maintenant, dans ces blessés, il y en a qui sont des blessés légers. C'est en général la plupart. Mais il, y a, il peut y avoir des blessés graves. jërëjëf ci teewlu bi daañu suy dellu si waat ci seen yeneen jotaayu xibaar ñu jàll ca Thiès jëyee nag bu metti moo fa daal di am ndax alxamis fukki fan ak juróom ci weeru août ci ab xeex bu metti ci la nag benn agresseur boo xamante ne ma ngay doog a génn prison. Ah, te sax dañ ko takkal li nga xamante ne moom mooy ah, bracelet ñu daal di koy ah, ray dañ ko lakk sax ñu gis ne nag benn peintre la doon agressé te dafa bëggoon sàcc li nga xamante ne moom mooy moto Jakarta am looloo waral nag ñu daal di koy lakk ba mu jeex tàkkaay surtout ba mooñ ci indil ay leeral. accident bi euh, ay vers am Euh, Ndoulou ak euh, Khourou Mbake. et euh, vraiment nous nuyu aussi di les forces de défense et de sécurité qui nga été ne leen fekk ci accident bi bon ba ñu ñëwee de constater quand même donc d'après les informations yi ma c'est un accident qui implique un impliqué camion bu mag bu transporter des denrées alimentaires donc euh, doon dem euh, Touba donc euh, mu ben mini minicar donc bo xamantene dafa jóge djourbel Touba plutôt waaw di dem djourbel bon il s'est trouvé que malheureusement donc il y a une collision frontale parce que camion bi ci bopam dafa genn ki am chemin donc mu dérapé mini minicar bi et malheureusement donc c'est une collision frontale qui était qui qui était fatale donc le choc est, vraiment euh, très fort. Et du coup, euh, sur le coup, apparemment, il y a eu, euh, effectivement, c'est ce qu'on a ñu jégalu ci élément bile daañ si dellu si waat suñu yeneen jotaayu xibaar violence politique nag ci Sénégal ca Saly nag amoon na ab atelier boo xamante weccante xalaat la ci diggante ñi nga xamante ne ñoo jot dund euh, métit ci violence politique ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa forum civil euh, Birahim Seck nag euh, mi nga xamante ne moom mooy njiital forum civil jàpp na ne li nga xamante ne moom mooy loi d'amnistie dañ ko war a abroger te nag enquête bu am solo war nañ ko ci ubbi enquête boo xamante ne nag du am benn njuuc njaac ngir rek daal di dalal xelu ñi dundu yile métit bi Birahim Seck la ñuy teewlu ci micro Astou Sow Ousmane Biteye. loi bi nga xam ne dañ ko voté mu la loi sur sur l'amnistie gisuma ci salle bi kenn ku ne loi buñ ko dindi donc des na ci gouvernement bi de façon même bu dee symbolique ñoom ñoom en war nañ initier. un projet de texte allant dans le sens nous abroger la loi sur cette loi sur sur sur sur, l'amnistie maintenant juge bi mom après moom xol ndax dans la loi cette loi pénale c'est une loi pénale ou rétroactive wala c'est une loi pénale sévère Kok juge bi mooy mais de façon symbolique parlementaire war nañ jël dougal la loi pour abroger la loi sur sur l'amnistie Benen bi moy li gëna a te discussion woné ko moy métit xol métitu yaram famille

Euh, fukki fa ak juróom ci weeru euh, août bi ñu nekk euh, ñu gis ne nag am benn agresseur boo xam ne ba mu génnee kaso ak léegi yàggul dañ ko sax daal di takkal li nga xamante ne moom mooy bracelet électronique mu daa doon nag di agressé ab peintre ca ko nag population ba daal di jàpp daal di koy dóor ko gaañ ko ba pare wëlbatiku nag daal di nag daal di koy lakk. ba tey nañ ci dellusiwaat suñu yeneen jotaayu xibaar ah, ñu des nag ci li nga xamante ne moom mooy retrait base militaire benn plateforme nag daal dinay euh, juddu ah, fukki association organisation sax ñoo nekk ci bile plateforme ngir rek ñu daal di fay jëlee base militaire française yi nga xamante ne moom moo nekk fii ci Sénégal. ginnaaw seen jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ne jàpp nañ ne duñu dellu ginnaaw benn yoon ñuy ñaan nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi nekk ci nguur gu bees gi ñu dal di ci taxaw ndax euh, combat bi seen combat la ñu teewlu leen ci micro Abdoulaye Dieye Boubacar Diagne. li nga xam ni mooy motifu conférence de presse bi mooy le lancement d'une plateforme de lutte contre les bases militaires françaises au Sénégal plateforme boo Euh, organisation de la société civile yo xamni depuis ay at ñoo ngi nii ñoo ngi lutter ci lool lu tax lool moy dañu nemmeeku 64 ans d'indépendance lañ wax 64 ans yo xamni japp nañ ni kat Sénégal mom na bopam 64 ans yo xamni japp nañ ni Sénégal warna am souveraineté waye buñu sétlo seetloo 64 ans yoy nonu mo ngi melni colon bi dafa rocceeku bàyyi fi ay tubaab yu ñuul yo xamni ñoo ñuy jiite li koy firndeel mooy seen xaalis la ñuy utiliser mooy le franc CFA seen système scolaire la ñuy utiliser mooy système éducatif l'école bi nga xam ni ki nga xam ni Jules Ferry moo ko construire mais aussi li ci gën a am solo mooy li nga xam ni la présence militaire française fii ci Sénégal muy wane ni nooteel goo xam ni jugu fi nooteel gi nga xam ni France ñoo ngi koy noot en complicité ak li nga xam ni mooy suñuy ñu seetlu depuis plus de 100 jours yoo xam ni am nañ régime bu bees amul acte buy symboliser li nga xam la rupture. pire même dañu dégg suñu président de la république moy muné li nga xamni ni di rupture buñu wara def warul brutal. kon tay buñu togué lu tollu weer ñu bind la ci mbir mo xamni japp nañu c'est une question de souveraineté suñu président tontuwu ci fulaalu ko wu ko muy ben manque de respect par rapport à la population sénégalaise waye ci li nga xamni mom moñu moo moy li nga xamni moy la présence militaire bu France suñu président li ci wax dafa tay suñu xel. ci walum collectivité territoriale Bala Moussa Fofana di jëwriñ ci nga xam ne moom lañ dénk wàllu wile ah, ginaaw nak déclaration euh, kuréel gi nga xamantene mom mo moo ëmb liggéeykat yi nek ci collectivité territoriale mercredi moom nag daal dina ngir rek daal di wax ne dinañu yeggale li nga xamante ne moom mooy seen grève moom Moussa Balla Fofana daal dinay indi ay leeral ci naaw euh, jàkkaarloo bu mu amoon ak taskatu xibaar yi euh, daal di euh, bëgg nag ci nu mu gën a gaawee joxe ndigal ngir liggéeykat yi daal di delluwaat ci seen liggéey ci nu mu gën a gaawee Mansour Dia si muñ ci indil ay leeral.

ñu gëm ne ñun li ñu ak ñoom tey jii mooy pare nañ pour accompagner maire yi pour ñu fay leen seen indemnité ba noppi appuyer nañu gëm état te xam ne dinañ ci góorgóorlu ba def ko ñu ngi leen di ñaan ñu bañ a ñu arrêté grève bi ndax grève bi day impact nit ñi te deux ans de grève ci li ëpp parce que sur les seize mille ni ma ko waxee mille yi ñoo ci am réellement droit ci indemnité yi donc ñooñu ñu ngi leen di ñaan am nañ droit grève waaye ñu leen di ñaan ñu dakkal grève bi ba noppi dinañ trouver solution. ministre bi dellu ci di xamle ne. li di li grévistes di laaj mu tollu ci juroom ben fukki milliards ak ben nguur gi bu ko naree def lu metti lay doon ci ñoom teg si ñuy soog a yegg si si bopp réew mi. ñun bi ñu xaymaa impact budgétaire li maire yi recruter ñuy laaj indemnité bés buñ ñu ne woon léegi dañuy appliquer ñoom li ñu diggee li ñu diggee woon ak ñee nga xam ne ñoo leen gëmloo ne mën na ne liñ leen war a jox ci koppar toll na ci 61 milliards ci ñaari at benn année rek c'est 21 milliards loolu nit ñi dégg nañ ma wax ko mais comme revalorisation bi mi ngi am deux ans ci ginnaaw bés bu ñu changé décret yi ñu bëgg ñu changé ko daanaka état dana leen ameel 61 milliards ñu teg ko ci ndoddu régime boo xam ne mi ngi ñëw. ca njeexteel ga muy xam ne gouvernement bi dina def ay réformes ak ay audits social ngir fexé ba càmbar naka lañuy recruter recruter kat yi fofu la ci mairie yi ba mun a li ni mel ci at yi ñuy jëm. paré nañ tam pour revoir code collectivité local comme niñ ko xamé ñu ngi doora a ñu ngi préparer ay rencontre weer wu ne ñu dajalé mairie yi waxtaan ak ñom ci benn poñ bokk na ci li wara war moy gestion capital humain bi. ak organigramme municipalité yi ak recrutement yi fexé nuñ ko téggé ci no xamné da fay gëna ñongal suñu municipalité

Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy kuréel bi ëmb liggéeykat yi nag euh, jàpp nañ ne duñu bàyyi benn yoon duñ dellu ginnaaw ndax li ñuy dund euh, métti na ñaari at a ngi nii ñuy nag xeex lile Euh, suñu nag ci jugul boobu ba léegi dinañ continuer euh, seen banque loxo ba am li nga xamante ne moom la ñu bëgg ñoom nag lu ñu bëgg sax mooy dem ba nga xam fa nga xamante ne fa mbaxana euh, doone benn ñu teewlu ki nga xamante ne moom mooy ba Badiane ci micro Boubacar Diagne Ndéla Ndiaye. dafa am loo xam dama ko bëgg a pour mu clair. mooy la politique de décentralisation au Sénégal. Nous am ñetti acteur acteurs. acteur les exécutifs locaux de manière générale sont acteurs. Les agents aussi sont acteurs là te ci nga ci acteur yooyu agent kessé ñoy acteur permanent mais malheureusement dañ leen a considérer ba ba daanaka bari na décision ñu jël yo xamni duñ leen ci fàlle duñ leen ci toppatoo lolu moko indi alors que ñun kese ñooy acteur permanent je dis mais le seul acteur permanent parce que depuis 30 ans que ñu nekk ci processus depuis 30 ans ñu ñu nekk ci table ji moom fekke nañ ko 30 ans la la wax depuis que processus bi commencé Moussa Balla Fofana 14e ministre bo xamni mo lañ ci waxal moy 14e ministre bo xamna lañ waxal ci li donc lim bëgg a takk naka la mën am prétention japp ni ñeneen liñ def baaxul mom limu def moo mom dafa defagul dara sax parce dans le secteur de la décentralisation bu mu ñëwee bële ban acte la ci poser gum ben revalorisation bi fan la commencé d'abord. Moussa limu wax non la démé en 2022 parce que dafa am ay négociations yo xamni dans le secteur public le secteur de la santé ak secteur enseignant yi dañu am ay discussion avec état bu mu aboutir ci ay augmentation généralisée L'ensemble des signataires ñi ngi ni bañ ko waré appliquer la gis ni la mesure dañ ko étendre sur l'ensemble des secteurs parce que Sénégal d'une considéré après Covid il y' a un certain nombre de choses qui ont fait que finalement le panier de la ménagère aussi pas le menace n'y a son. personne. état bi jël par au mois d'août, en début d'août août 2022 un salaire Un salaire par hiérarchie et dans le secteur public dañ ko par hiérarchie A B C D E loolu ba mu amé, inter Sénégal dafa dafa un état aussi ay agents du secteur public et là un agent non fonctionnel, mooy la a ko recruter par rapport à un corps de fonctionnaires le corps de référence diplôme bimila, Bob le lañ lay lac mom la ci intégré ni ñi fay agent Bobu euh, bu état bi non lañ lay fay exactement quelle est la différence entre un agent un agent non fonctionnaire et agent fonctionnaire au Sénégal xam nga lan différence régime de retraite ni ñi retraité kese amul benen différence. maire bu ville bu dakar di euh, Barthélémy Dias da dinay def li nga xamantene mom soxal euh, lancement ngir defarat c'est bi di Ousmane Socé Diop nga xamantene mom mo moo nekk ca Jëppal Derklé ci loolu nak koppoor ya toll nag juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk euh, ci ay millions ci suñu koppar euh, bi leen nag euh, activité ñi nga xamante ne ñoom ñooy parent d'élèves yi ak yenn ci ay enseignants yi bokk nañ ci ñi nga xamante ne teewoon nañ fa ngir rek daal di taxawal prolongement programme bi la construction ak defaraat li nga xamante ne mooy yenn ci ay infrastructure yu nekk fii euh, ci ville bu Dakar waaye nag defaraat li nga xamante ne nag moom mooy xar kanam euh, bu Ndakaaru am satu gaana moo ñu fa teewaloon. defaraat lii di CEM Ousmane Socé Diop te daal li nga xamante ni moo di centre médico-scolaire bu jëppal daanaka loolu dafa bokk ci li nga xamante ni suñu xelum teef loolu dafay euh, daal di firndeel li nga xamante nii mooy volonté ngi ñu am jëm ci politique publique. nécessaire interconnexion. secteur éducation ak santé nek na lu am solo ci mim rew ali ni mel na maire bu Dakar di Barthélémy Diaz ba mu ay ci cérémonie pose première pierre bu ñu amaloon ci CEM Ousmane Socé Diop muy daal di d'une dina gëna dolel li di centre médicaux yu à si biir établissement yi waaye tamit gën a dolel li di école yi ngir ñu am ay résultats yu baax en effet. ñëpp xam ne ni li jëm ci walu wér-gu-yaram ak li di njàng dafa am solo ci dundu doomu adama. loolu moo waral ba li nga xamante ni moo di conseil municipal bi na ci xar tànk tubayam ngir fexe bam daal di gën a mën a ñoom waaye tamit li nga xamante ni moo di askan ndakaaru ci seen bopp bu baax a baax ci suñu liggéey. ci bu ñu sukkandikuwee ci moom ab yile programme lu ko tax a jóg mooy defar ville de Dakar ba ñu nekk ci ay conditions yu baax looloo tax ñu daal di créer ab yile programme ngir tabax waaye ak defaraat lii di établissement scolaire moyen secondaire ci biir département de li ñu bëgg daal mooy fexe ba daal di coppaat ni lii di dund waa Ndakaaru ngir mu daal di gën a mën a ñoŋ waaye tamit fexe rek ba daanaka kenn ku nekk mën a am dund ku baax fii ci Ndakaaru. benn fan ci weeru septembre bi ñu jëm képp koo xamante ne yaa ngi yow foofu ca Côte d'Ivoire di nga am visa boo buggee tukki fa nga xamante ne moom mooy ca Maroc bi lee décision nag ñaari réew yi dañ ko daal di waxtaanee ba déggoo ci bi lee ndogal nag dina def diirub ñaari at li ko sookee nag ngir daal di xeex li nga xamante ne moom mooy mbëkk mi ndax euh, ca Maroc gis nañ ne fa la ñu bëri di daal di dem ngir mën a wutali euh, fi nga xamante ne moom mooy euh, Europe ñu wax ci république democratique sénégalaise ñu ngi fay euh, république democratique du Congo ngeen baal ma ñu ngi fay wéy di jàpp doomu aadama ñi nga xamante ne jàpp nañ ne dañoo bokk ci M23 euh, ñu tollook euh, ñaar fukk ak juróom-benn ci ay doomu aadama nag daal nañ leen condamné à mort maanaam dañ leen nar a faat tribunal bu militaire. tribunal militaire bu Makola di décidé ay bis euh, bi ñu génn waaye nag euh, ca bët euh, gan ca fa nga xam ne moom mooy penku réew mi suñu sukkandikoo ci yenn kàddu yeneen ni doomu aadama daan dañ leen di jàpp fële ca Beni feneen fa ca Butembo ak Nord Kivu Euh, ñu jàpp ca sax ay leader yoo xamante ne ay leader politique lañ ci euh, ñi nga xamante ne ñoo ñoom lañ ca jàpp ki ci gën a fës bokk na ci Moussa Sivilia Mengue euh, nekk nag koo xamante ne moom lañ jàpp ne moom moo gën a fës ci parti politique alliance des forces démocratiques du Congo di AFTC ca Butembo ña ko jàpp nag mooy service de renseignement yi fukki fan ak ñeent ci weeru juillet. Ah, ci lañ ko jàpp dañoo ko daal di tuumaal ne dafa daal di recruter yenn ci ay ndaw daal di organiser ay réunion pour nag ñu daa ñooñu yooyu ndaw daal bokk ci M23 ca fa nga xamante ne moom mooy bët gànnaaru ah, RDC. république démocratique du Congo Patrick euh, Siko nekkoon nag maire ca Butembo ca Nord Kivu moom it dañ ko daal di jàpp noonu noonu lañ jàppee Fabrice Kakurusi euh, benn activiste activiste boo xamante ne ca société civile locale ba ca la bokk ca biir nag yeneen ni nit tamit daal di nañ leen jàpp par benn benn euh, bokk na ci Kambale Amani Euh, moom mi nga xamante ne nag jàpp nañ ne moom it euh, dafay recruter ay ndaw ngir ñu bokk M23 foofu ca République démocratique bu kongo mbokk yi kon euh, bile xibaar moo buur xibaaru marax yi ñu leen di jaajëfal bu baax ci teewlu bi di jaajëfal équipe technique bi nga xamante ne moo jàpp ci liggéey bi ba lépp yemb di remercier également képp koo xamante